benn baax na benn baax na benn baax na ah non page pro sa quoi moo Immer, immer. Bas. Baba, bir masada, bir masada. def dara dama bëgg ñu marqué une minute de silence pour suñu rakk yi nga xam ne nguuru Macky Sall assassiné na leen ci événement fi amoon entre le 15 et le 16 muy li xew kër Mbaye Fall ak li xew fii ci Ziguinchor donc une minute de prière de pour suñu rakk yooyu. jërëjëf après ça li ma ñaan ñi fi teew ñëpp mooy ngeen tàccu seen bopp.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 mention parce qu'elles sont le symbole de la résistance elles sont les dignes héritières de Aline Sitoé Diatta elles sont les dignes héritières des femmes de Nder parce que li ñu daj fii ah. bëri na jeunes yoo xam ne su doon ñoom sax boo moytu dem nañ bu yàgg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 Vous avez été formidable. L'histoire retient et retiendra. Vous à la face de tout le Sénégal et du monde entier que su wax fit su ñuy wax jom su wax ngor su ñuy wax fulla nga xam ne c'est des notions qui été théorisées dans nos langues nationales ku koy wër ba di ko wër.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 waaye da ngay jëm lépp la. et je ne regrette pas d'être venu à Ziguinchor. damay ñëw fii dama amoon objectif mooy seen affaire tappane yi ñu nekk. li gis démb te yëpp rus ci te l'histoire retiendra que ci Macky Sall la amee fii ci Sénégal. naam sax bañu woon dem wuyu ji ndax sénégalais la citoyen la mais conditions yi ma doon imposé pour ma wuyu ji yéen ñëpp ngeen gis ko toj sama oto di barricade sama kër di terroriser ma famille. dernière fois ma dem wuyu ji bi ma fa jógee hôpital laa dem directement.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 jaay nañ ñu fi doole. mënul ne de. kon. li mu wane mooy Macky Sall li mu doon def moo ko tey te xam nañu du ndax bu ko neexoon ni dëkk la ne dina mobiliser armée nationale. dina mobiliser unité sécurité bi mu yem yëpp. te bu boobaa dina métti trop. ndax xam naa ni bu doon résister. musiba dina essayé waa Ziguinchor la région comprise les trois départements. waa Goudomp. waa Bounkiling. waa waaye est-ce que xam ngeen ni bëri na xam ne Dakar la jóge wala dootul zone Sénégal te ñu ngi woon ci leer li ëpp solo ci mbir mi mooy on a pu faire ça sans que seen fumisterie yooyu nekkee à chaque fois qu'il s'agit de la Casamance ñu naan rébellion wala yu ñàkk fayda yooyu ñuy mais on a pu faire ce qu'on te seen waxu publicité yi jàllul lopp Sénégalais yi parce que tous les Sénégalais plus Sénégalais que la Casamance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 nee leen d'accord ba pare. nee leen d'accord ba ay triant ngeen. bii groupe bi waaw.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 pour bu ñëw léegi. léegi dama leen wax lenn. ñun lan moo ñu tax a jóg. lan moo ñu tax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 ñëpp dañu war a ànd dëgër jublu Ndakaaru dem jàkkaarloo Macky Sall et pourquoi l'appel que je lance appel bi may lancé maa ngi koy lancé toute la jeunesse sénégalaise bis ni tey jeune boo xam ne gëm nga li ñuy def te jaral la soo ko mënee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 à partir de maintenant procureur boobu nga xam ne kenn xamul doon keroog mi def plaidoirie am dafa ne zéro tolérance pour Sonko à partir de maintenant zéro tolérance pour Macky wax leen nag yi nga nekk fii ñu nekkal fii ci Casamance et qui rasent les murs ñemetuñu sax dox publiquement ngeen jëli ay ministre Dakar dugal leen seen biir kër yi. ñu ngi leen di wax nii nañu nañu téye nañu téye seen bopp. benn ministre bu génn fii Ziguinchor xosi fi sax benn xale. ñoom gëm naa ni ñoom dinañ génn Casamance waa politicien Ziguinchor. dootuñu fanaan fii dootuñu fi yemb. nous on n'a pas besoin de ministre.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 est-ce lii ngeen sacrifié pour m'assurer une protection war naa dellu Dakar ni seetaan ko. Macky Sall di def lu ko neex. kon yéen da ngeen da ngeen sas ñeneen ñi. bu transféré le te teewul di ànd ak man gunge ma. man kuy patriote ci Sénégal nañu xam ni combat bi ragal du ko motali de.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 su foogee ni am na lu toll ni tarfatee loo xam ne ragal naa ko ci moom ndax na boppam te lu mën bu dee dama war a joxe sama bakkan pour Sénégal baax définitivement je ci toll mais may bu dee ay affaire u ak affaire loo xam ne festivité la wala yu mel noonu bu ñu nee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 wala Ousmane Sonko mu ngi doon dawal vélo fii ci buntu këram wala ci biir waxtu bi nga bañ a dugub wala sombi gerte.